si jotaay bi liñ fi doon waxtaanee mooy fitna yi nga xam ne tout tànk yu jigéen yi di teel a sëy lool dañ koy jànkonteel yëpp sax di faral di yàq seen àdduna lu ni mel nag ñoo ko gën a nemmeeku si gox yi nekk si bët saalumu réewu Sénégal fu mel ni Kolda ak Kédougou bu ñu sukkandikoo si li tukkee si enquête démographique et de santé continue fii si réewu Sénégal téeméeri soxna yow jël juróom-ñetti ak lu tekk sëy nañu laata ñu am fukki at ak juróom. bu ndaw jël ko maye ko lu mën lu ko mën a jural bari na dèjà dina mën a taxawal dina tax avenir mën na cee taxaw dèjà na xale bi du fekke mu dem ñu may ko rek mun na see bàyyi jàng xale bi du fekk ñu may ko rek mun na si jël ëmb bu teel xale bi di fekk ñu may ko rek ëmb bu mu ci mën a jël mun na ko indi ay loraange ci par rapport ak état physique am état santé am kii état mental coalition nationale pour l'abandon du mariage d'enfants di Konam li ñuy sàkku ci nguur gi mooy ñu gën a defi jéego ba gën a dooleel xeexu sëyu xale yu teel yi fii ci réewu Sénégal adopté it li di code de l'enfant donc vraiment bu ñu sañoon tey jii Sénégal mu nekk dëkk bu nga xamante ni dafa naat xale yi ci seen bopp ñu sentir ne am nañu état bu leen di protéger mais protection bi mu commencé ci famille bi d'abord ñu ngi remettre question relèvement de l'âge au mariage maanaam nañu yëkkatiwaat Euh, âge bu ñuy mayee xale yu jigéen ñi delloo ko ci 18 ans ndaxte dañu ne góor baax na jigéen baax na donc bu waa autorisé ku xale bu góor bi pour que ñu mu sëy à 18 ans war na koo mën a tamit may xale bu jigéen bi. xeex sëyu xale yu jigéen yu teel yi bokk na si li di sàmm seen ak ak seen i yelleef may leen nit doole bu ñu mën a tekki si àdduna. kon naam fas na yéene gën a yokk plaidoyer am samp dañ ay antenne régionale ci Sénégal gi wërngal këpp ngir wasaare yëfi fépp.